abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk yu wér te wóor aju ci réew ci bitim réew. jërë ngeen jëf ndigal li bàyyee ko ci xalif général des mourides sëriñ muntaxa mbàkke basiru ndigal loolee la ñu yéene kaay xëy di jottali bokk ci ñoom la seen kaay mi ñu ne sëriñ muntaxa tere na politique ca Touba lii quotidien feelu ko bind ci xëtam mu njëkk ne xalifa bi nee na bëggatut a gis daray politique ca Touba le quotidien jàppe ndigal li fadoo bu bàyyee ko ci sang bu tedd ba ca Touba sëriñ muntaxa mbàkke basiru vox populi bind ne xalifa bi sant ñu saytul ko dëkk bi ba kenn du fa def politique baa nga fay def lu neexul borom dëkk ba yéene kaay bi dolli ñu ci ne ndigal loolee sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru joxe képp ku ko xëtt ay kuur yi Baay Faal dina la sàpp l'observateur xëy di ñu yeggi li ñu def ca dëkk ba te neexul sëriñ bi ba tax mu ne bëggatu faa gis daray politique bokk na ci manifestation yi fi amoon bu yàggul ginnaaw procès Adji Sarr bi Ousmane sëriñ bi nee na bépp bureau de vote news mu ne li may réew mi sens moo di ba léegi dañoo duggagul ci manifestation yi waaye buñ ci duggoon ba tey kon kenn waxatu ko moom Serigne Moustapha Sy les éco nee nañu àdduna it ci la xewoon ci assemblée nationale ci diggante député Amy Ndiaye Gniby ak ñaari député yu bokk ci parti PUR nee na lu ni mel su amaate assemblée nationale assemblée ba ci boppam la écrasé wax nay ne Ousmane Sonko nit la ku digne nit la ku courageux nit la ku ma sopp lool ku mu neex des œuvres universitaires bu ndakaaru ci waxtaan yu xëy séq ak waa l'observateur mu Maguette Sène ginnaaw bi mu tiisloo jaale ñi ñàkk seen bakkan ci manifestation yi Maguette Sène mi ngi leeral la waa la xewoon ci université Cheikh Anta bu ndakaaru nee keroog ñaari théâtre d'opération ñoo fa amoon benn bi ci campus social ba beneen bi ci campus pédagogique ba mu ne ci njëlbeen gi étudiants yi ñoo doon jàppante ci seen biir police dugg ci la ñu gisee ay nit yi jugee fu nekk jawale ci université ba lu ñu romb caxat-caxate lu ñu jekku taal lu ñu romb yàqate ko ci noonee ca la ñu caxat-caxate université bi mu ne muy sesti di bibliothèque bu université ba faculté lettres faculté droit amphithéâtre ba ba ci bis yi doon dimbale waa université ba di leen yóbboo ko indi lépp la gaañi taal direction générale bu kudd ñoo taal ko caxat-caxate ko màgget seen ñi yàqate université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru lu ñu ci jublu woon mooy bëgg a yàqal état bi moo tax ñu dem songi foo bokk na ci fi liggéeyu a fës ba tey ci l'observateur directeur général bu bu ak service comptabilité ba lépp la yàq lépp la taal ba tax na defaraat gi dina jël temps temps yi yépp ñoo ngi dégg ab bataaxal bu Felwine Sarr ak compagnie bind di ca ŋàññu doxalinu Macky Sall l'info nañu professeur Moussa Baldé ministre enseignement supérieur tontu na leen démb ci dimanche ji ci rajo Futur Média ci émission Grand Jury ministre Moussa Baldé nee na dafa am ñoo xam ne bu ñu tàmbalee am aw tur lu mu néew néew dañuy jàpp ne am nañu enquête ci xibaar boobee ba dañu wax la ci am dëgg-dëgg li mu ci gis mooy manipulation ak gaawtu gu ñu gaawtu ci jëfandikoo xibaar bi te amuñu ci lu wér li wér libération ne nañu mooy ndaw si di Njaay bokk ci cadre Pastef yu Linguère yi doon it kiy coordonné parti bi ca Mbula ma nga ci loxo yoon waa section recherche bu Kër Masaar ñoo ko jàpp audio bi mu def ba tax ñu teg ko loxo libération mi ngi ñuy wax la ca nekk yi nekk ci xët mu njëkk o bokk